waaye dañ ciy tënk rek tuuti ngir barkeelu yonent bi kon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ko suñ boroom xamalee njëg mi nga xam ne ne waa Quraysh dañ ko yónnee Sham mu war a ñëw Makka te ñun ñëpp ñu def ci seen alal ba mu bari lool mu ngi génn Madina fukk ko ñaar ci weeru koor bi muy génn it forcé wut kenn ci génn gi dafa wax saxaaba yi ne leen rek kum neex wala ku jekk ku sarax la jekk nga génn ndax yàlla mën na leen dajale ak alal ja ndax yay na ci yéen looloo tax sax yeddul wala kenn yeddut ña toogoon Madina jotu ñoo ñëw Badar ndax yonent bi forcé wu leen woon ndax ba muy génn kat xeex yëkkatiwu ko woon dafa jàppoon na rek bu demee dana daje ak njëg ma ba tax na kon ña doon génn ñëpp la la doonoon seen objectif seen xadef ci ba ñuy njëkk génn mooy dem am ca alal ja waaye nag Abu Sufyaan mi jiite woon mm, alale yéefar yi dañ boole ko ñeen fukki góor dafa doonoon ko ñaw doon ku daan informé wu bi mu xamee ne yonent bi kat jógee na Madina ngir kar ko dafa def ay stratégie fexe ba teggi ba raawale njëg ma waaye yonent bi itam dafa amoon ku ñuy wax bas-bas no amr koo xam ne ne moo ko daan jox ay information moom la yebaloon bi mu ko xamalee ne ko njëg ma raw na fekk nañu génn ba noppi kon dañuy xam ne kon léegi xeex moo fi sës ndax suñu borom wax na ko ne nag ñaari yi moom danga ci am benn li ñuy wax ayir wala nafir da ngeen jot njëg ma wala boog ngeen gañe euh, euh, xeex bi kon daf mel ne xeex mënta ñàkk looloo tax sax lenn ci jullit ñi bi ñu xamee ne njëg ma raw na dañ doon wax yonent bi nekk tey ñoo wàññeeku dem Madina gannaaw la ñu taxoon a jóg kat loola man amatut ñoom la suñu borom di wax naan kama axrajaka rabbuka min baytika bil xaqi wa inna fariqan min al muminina la kaarihun ay juróom suratul anfal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ak ña jotoon a génn toll ci ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñii na yées na ko ñii ne ëpp na ko waaye boobu lim siiw na yonent bi daal def mu mushawara ak ñoom maanaam diisoo ne ren ah damaa bëgg kat ñu waxtaan ndax wat gaal ak yëgoo daal ne junjal leen ma maanaam wax leen ma seen xalaat fekk boobu muhaajirina ak ansoor la Seydina Aboubacar Seydina Omar ak ku ñu wax almiqdaad ibnul aswad dal jëkk wax ko seen wax yu siiw yi almiqdaad ne ko yow mi yàlla yónni wedd nañ la ñu gëm la dëddu nañ la ñu topp la te duñ la wan gannaaw mukk duñ la wax mukk la nit niti Moussa ne waxoon Moussa ne ko fa sabanta wa rabbuka fa qaatila inna una qaaidun demal ak sa borom ngeen xeex ñu ngi leen di nekk fii aaya 24 suratu maida ne ko ñun kay liñ lay wax mooy ishab anta wa rabbuka fa qaatila inna maakuma muqaatilun demal ak sa borom ngeen xeex ñu ànd ak yéen di xeex boo doon dem ba yemen it duñ la wan gannaaw yonent bi daal delluwaat ci waxam ji ne junjal leen ma ko ñu wax Saad ibn Muaz moo jiite woon al ansar muy ñi dëkk Madina ne ko yow mi yàlla yoon dafa mel ni ñun ñoo tax ngay wax mu ne ko waaw ndax kat ca bayatul aqaba ba waxaale wuñu woon ne yonent bi bu nekkul Madina danañ ko aar dañ ko woon rek li feeg yaa ngi ci sunuy kër danañ la aar ni ñuy aaree suñu bopp ak sunuy njaboot Saad ne ko yow mi yàlla yónni gëm nañ la te duñ la weddi mukk topp nañ la te duñ la wan gannaaw mukk lañ la waxoon ca bayatul ba moom rek lañ lay waxaat Eh, sawar nañ lool dajeeg say noon bu doon tay sax gënal ñu dal ne ko boo doon xuus géej gi itam ñu xuus ko ànd ak yow te it yàlla mën naa seral sa xol ci nun ndax ñun ay xeexkat lañ te du ñuy yaafus yonent bi nag daal di am confiance lool nag daal di bég ne leen nag maa ngi jàkkaarloog ni ngeen di nërmeelee seeni noon yonent bi ma naa jàngat ay point yu am solo ci yoon wa rek waxuma sax ci xeex ba waaye ci yoon wi ndax am na ñaari gone yum dëpp ku ñu wax albarra ibnu ajib ak abdullah ibnu omar ne leen yéen ay ndaw ngeen mënul leen a xeex wax nañ ne abdullah ibnu omar dafa doon jooy loolu it am njàngate ngi ci ci ab jullit rawatina gonek jullit ci wàllu jom ak yiite ak passeef waaye tamit seeni waruwaay dafa matutoon ndax ñaari fas la ñoroon ak juróom-ñaar fukki giléem kon ñoom seen liw lim néewoon na waaye seeni waruwaay it moo gën a néewati nga xam ne dañ doon def ñett ñu ne bokkaate giléem di bokkaate waruwaay yi bu ñuy waree ñuy dox ba sonn ñuy war yonent bi sax dafa bokkoon ak Seydina Ali ibn Abi Talib ak Abu Lubaaba ak gëléem Seydina Ali ak Abu Lubaaba ne ko yow mi yàlla yónnee dañ laa bëggoon a bàyyee gëléem gi te dox yonent bi ne leen ëpp leen ma kàttan daqu leen maa dox te gënu leen maa xeemeem ab yool njàngat mu rëy ngi fii itam ci kuy jiite mbooloo ci turu diine élégance bi nga war a am ak maanaam euh, euh, yitte ji nga war a am ak woyaf gi Euh, donte cër bépp mën nañ la koo jox waaye it nga delloowaat ko diine dafa baax Abu Sufyaan daal di bind leetar waa Makka dal di yónnee boog ku ñuy wax Amru ibn mu dem xamal leen ne leen nag yonent bi mi ngi kar seen njëg ma waxee leen ko wax waxin wu ñàng yaa ahla Qurayshin allatima allatima ak yu ñàng yam ci def yépp mboolem waa Qurayshin sangi Qurayshin yépp jóg ku dul Abu Lahab ñu jóg bi ñëwee ba toll fu ñuy wax juf fa eh, Abu Sufyaan bindaat leetar ne leen nag maa leen waxoon ne leen ngeen ñëw aar si séeram njëg waaye maa ngi leen di waxaan ne leen njëgg ma raw na